dañuy dem <laughs> du cuisine mais plutôt secret d'histoire culture ak yi ñuy mën a jàpp euh, ci yenn gox gox goxaan yu nekk fii ci euh, Sénégal tey Bessél mhm. daf ñuy yóbbu ci euh, loñ mhm. Pape dañuy dem rek ba ci loñ ni ma leen ko waxee woon sànq ci loñ nekk na nag dikk dëkk boo xam ne dëkk cosaan ak aadala waaye tamit dëkk boo xam ne la ñu bari tamit fa la ñu jógee waaye tamit bari lool nag ñi nga xamante ne jàng nañu parce que d'habitude da ngay dem ci yenn dëkk yi maanaam école bi duñ ko fonkee noonu mhm. mais ci loñ mun nañu wax wax ne bari na ay cadre euh, vraiment parce que ñu bari euh, tey euh, ñu ngi fa génnee loolu yëpp dinañ ci xam dara comme ni ma leen ko waxee woon rek dañuy dem ba ci loñ xool lu tax ñu ne ci loñ moo bi ndaxam wolof la wala pulaar la wala séeréer la kon li ñuy def rek mooy ne ñu dem ba ci loñ ñu wax ñu lan mooy ci loñ ci loñ ñu ne tul gaa ngi jóge ci ciluli ay garab la c'est des épineux yu ñu bëri ci ci ci gox yi la xam ne am na ay ay bari ñu ne c'est-à-dire le plus de ci ñu ni foofu la tur ci lañ euh, amee moom la ñu faral di wax vraiment ci ci ci ci ci suñu bu ñu xoolee position géographique Fouta mu ngi situé ci lu ñu naan la moyenne vallée xam nga la basse vallée c'est vers Bakili ak euh, la haute la. la basse vallée c'est dans le Waalo le Fouta se situe dans ce qu'on appelle la moyenne vallée entre le Guidimaxa et et le Waalo. boo xoolee fu euh, Thiel nag dafa mel na ci digg bi la samp dans la bu ñu doon faral di wax euh, Bossé. donc bu ñu xoolee position géographique bi dafa mel na euh, Thiel ci digg bi nag mooy xëy na mooy comme pilier bi moo moo téye Fouta. maintenant d'un point de bi ci mbirum histoire aussi ah fii nag macha allah dëkku xam-xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la dëkku diine dëgg dëgg dëgg dëgg la. ndax d' abord ki ñuy naan moo rëdd ci lañ parce que dit que les premiers habitants ñu fi dëkk c' est les Diagne et les mais bu ñu waxee les Diagne et les Diagne aussi am na ñu fi ñëw mooy ñu doon euh, euh, barkaati démb kuréel na Thierno Molle dañuy faral di wax Thierno Molle euh, Thierno Mamoud li daanaka ñu ne moo rëdd ci lañ moo télimité ci lañ ñu nag ay borom xam-xam ci diine muy law muy law muy law muy law ba ak ki ñuy di wax franchement dañuy faral di wax ay Thierno Hammet Baba Talla rax ci li dëkk bi presque dëkk shérif la boo waxee shérif rek dans le Fouta généralement dañu naan euh, Thiel donc am na bëri ñu xam-xam Thierno Hammet Baba Talla képp bëri nañu jàng lool alxuraan ci réew mi ak ci Fouta mun nañu wax fii la tibbee xal ngir euh, ubbi euh, yeneen daal donc c'est une capitale vraiment religieuse maintenant aussi d'un point de vue économique am am am am macha allah ci lañu bëri na lu mu am parce que ñi bëri na fee ay ay de grands commerçants mais aussi position am non loin de la Mauritanie aussi ak yeneen yi tax na ci lañu am vraiment am na lu mu am ci xëy na nag ñoo ngi ñaan yàlla mu gën yokk mu ñaan yàlla tur bi encore gën dem ci kanam mais nag am na lu fi ne gisuma fi benn religion parce que c'est à 100 pour cent Euh, musulman bàyyil boo demee ci dëkk yi jël paa yi teg leen ci ay guy <laughs> ah waaw baax na nara dal ñuy wax ba si yàgg jinne wàcc mbéj leen wala guy gi daw wala guy gi daw ndax ay wax yu rëy la ñuy wax ah. non guy gi mënta daw bu fekkee da dem dëkk xam nga ah. nee nañu boo demee dëkk ni nga fekkee waa dëkk est-ce que dëkk yi da ngay dem sax boo demee paa yi ngay jël teg leen ci ay guy rek <laughs> su guy gi xamee naa ko def nga ni game naa game xamee naa su guy gii de euh, xam nga guy gi fu mu gis bokk ci bu fekkee dëkk bu ma am na guy ginnaaw front de terre am na guy ak ay guyam ak ah, ay guyam waaw ak yaay guyam. guy bu nekk am na lu muy signifié dégg nga. Ah, ah loo foog. <laughs> <laughs> Ah? waaw li ngay def yëpp paa ngi fay teg kenn loxo musul génn mbéj leen. Euh, xam nga sànq dafa am lu ma loon lu ma doon wax nga fa Pape Cheikh daal di may dog bàyyi di ma dog. doom ah, noppi naa baal naa hmm? lee duma ko kii de. Eh, loolu nga bëgg nettali dara lu gàtt rek. waaw waxal. taximan bi wëraale woon na ma may tuuti rek. comme ci guy la ndeysaan taximan bi wëraale woon dem baale ba xolam sedd jël taxi bi wër wër wër man may wax waxu toj toj toj xam naa yóbbante ki ci kaw la na toog déglu ba rek <laughs> waaye si wër wër wër ba xolam sedd ba nga xamante ne guddi na rek def kursam yi ba mu yàgg rek dem ci benn taatu guy rek ne taximaan mayam mm. rek dem taxaw ci guy gi tong tong maamee maam ibil moom fay taxi bi <laughs> eh maame. taxi man bi daw. ah bañ a kaa. <laughs> ma doon lépp la dëgg la. non lépp la mais ah, dégg naa bu doon dëgg la ñu ëpp ma may leen loolu. waaw tuuti ngelaw tii. <laughs> kay tàngaay ñëw. leen na de law na de mi ngi bëgg a law de. léegi Bessél euh, ci lañ euh, bu ñu dégloo góor gi wax ah. dinañu xam ni dëkk la. man ginaar gi ni ma soofe suñu ginaar gi sa morom ah, naa ko yób naa ko changer ngunu comme ñun dañoo bëri ay studio dañoo bëri ay studio noonu ñu bëree ay ngunu naa changer naa changer ngunu gi yóbbu ko ci beneen nguuru defante kat rek laa bañ ana ginaar ak xàqataay jéeg ju mel ni man waaye yow maa dimbali ma dama bëgg nga wàcc ma <laughs> ah ngay dolli <laughs> eh tasal sa élément. <laughs> ci lañ bu ñu dégloo paa bi wax léegi dañuy xam ni dëkk la. bu uh-huh. histoire am riche torop sax. dëgg la mm. euh, Pape Cheikh dégg euh, li nga xamante ne rek góor gi moom la wax ci historique gu Ciloñ euh, Ciloñ nekk nag dëkk boo xam ne tamit dëkkum diine la bari na tamit ay daara mais daara bi tamit comme ni ñuy waxee rek dañuy jël seeni doom dugal leen ci alxuraan bu ñu juddoo dañ leen di toqantal foog naa noonu lañ koy waxee. Ah. bu ñu leen toqantalee ci alxuraan dañ leen di dugal alxuraan mais dañuy xamante ne moom mooy école euh, français ñaari yëpp voilà la ñaari mm-hmm. yëpp boole euh, ci tamit nekk na dëkk ba nga xamante ne tamit ci wàllum économique ñoom ñu ngi ciy génn bu baax a baax waaw voilà mm-hmm. wàllu koom-koom mm-hmm. ñoom ñu ngi ciy génn parce que am nañu seen benn luuma boo xam ne yeneen dëkk yi ko wër yëpp lu ci mel ni Matam soriwul soriwul tamit Mauritanie donc mun nañu wax ne ci loñ ci diggu dëkk bi la nekk aussi bari na ñoo xam ne tamit dañu nekk bitim réew ñoom dañu fondé seen benn boo xam nga nekk jeune cadre wala cadre buy mm-hmm. liggéey mm-hmm. Euh, chaque mois dafa am benn cotisation boo xam ne da ngeen koy def. Ah, euh, pour voilà donc. Euh, dañu voilà mu ngi noonu fàttewuñu seen ah, ko parce que mm. ci lañ tey boo fa demee sax pour nga gisati li nga xamante ne moom mooy néegu ñax mm-hmm. dafa jafe. parce que mun nañu wax ne ñoom seen biir dañuy jàppante doon benn booloo doon benn parce que dañuy organiser at bu jot benn manifestation bu bu mag a mag voilà benn journée culturelle boo xam ne dafay am maanaam dañuy saytu ñi nga xamante ne def ay visites yoo xam ne gratuite la visite médicale yoo xam ne gratuite lay doon mhm. ca dëkk ba génnee tamit nag li nga xamante ne moom mooy seen togg seen cosaan ak seen aada mhm. euh, lépp nag ñu ngi koy def ci base li nga xamante ne moom mooy dugub ah. mooy lu ci mel ni jeexte lu ci mel ni kosam mhm. kosam la soow voilà lu ci mel ni dax lu ci mel <laughs> ah ci mel ni diw ñor ah. donc lépp loo xam ne rek ci loon lañ ko béyee ah. ñoom loolu dañ koy génnee ci journée culturel boobu ñu wone ko defar waa exposé ko defar ay lekk yu bari base base bi tamit boo xoolee lu ci mel ni dugub dañ ciy defar ay gâteau defar ci ay cake la ñuy def moom la def tamit ñëw si li nga xamante ne moom mooy euh, euh, seen cosaan ni ñuy soloo li nga xamante ne da ngay gis tukuleer yi dañuy lettu mhm. def seen i diibe takk ah. seen i euh, seen i ngalam ngalam mhm. nga gis ko ak seeni i cuub loolu yëpp dañ koy génne ci lañ nekk na dëkk boo xam ne dañu fonk seen cosaan ak seen aada ah. donc tamit boo demoon ba kulikoro mhm. boo dellu si waatee da mel na nga xamante meloon. très bien seen togg yi lekk seen seen lekk lan la. lekk bi Pape Cheikh mën nañ parce que xam nga boo xoolee li ñu fi jot indi yëpp mhm. ñëpp dafay xaw a nuroo mhm. dafay xaw a méngoo mhm. ñoom nag euh, tey bi ñu demee ci loñ dañuy ne tukkuleer ñiiri bu na mais xam nga tukkuleer tamit ku nekk sa cosaan ak sa aada waaye ku nekk tamit ak plat bi nga xamante ne yow moom nga xam ñoom nag dañ ñu toggal li nga xamante ne mën nañ ko waxee sax daxin bu tooy mais euh, base bi tamit voilà base bi ba tey rek jeexte la ah. mais ñoom dafa am jiw ñor ah. boo ko toggee ba pare olof di ko wax laaxu caaxaan. ñoom lañ ko tuddee ah, dañ koy sóoraale ak diw ñoom. comme niiri buna la. Euh, waaw non am na am na différence bu rëy. parce que lii dafa oyof bi lii comme laaxu caaxaan la noonu la mel. Ah. xam naa li ñuy def rek mooy ñu dem seetaan ko. ok ayca ayca. gerte dina ci dem géej bi dina ci dem lii tamit bisaab la dinañ ci def kaani dinañ ci def diw ñor. Mhm. ci def laaj aussi sa jëkkër feebar moom xaw a tooy tuuti dañ koy toog waaw wala mu tukki jóge fu sore comme ni ngeen ñëwee sonn nii lii lañ leen di toggal <laughs> maam Mor génnal mu taxaw nee na déggul maam Mor génnal maam taxaw mel ni ku bëggoon a feeñ. li la la wax nag maam Mor daa bëgg ñëw bokk si émission. ko dal moom ko waxee feccal mu të ba pare bëgg kii. waxuma muy daa bëgg a bokk de. séddale ndekki dafa jar taxaw fii. <laughs> lu ko dal ak bëgg ah? léegi image bi ñu gis léegi euh, muy togg waa euh, waa ci loñ dama bëgg ñu indiwaatal ma ko ma taaj ko téesante <laughs> fin bi tuuti rek mosal ma ci tuuti rek ma taaj ko téesante ex nag génn yoon nekk ci na tàmm naa waaw kii ngeen di gis nag laa leen bëgg a wax kan la <laughs> man ak Bessél dañoo yàgg xamee naa tantam bii tantam bi marist bii la dëkk dama koy weer waaw. wax nga dëgg si boobu booru dex yi. sëru Mamadou Ibra Kane la dégg nga. booru dex yi ah, sëru Mamadou. <laughs> fii kër Mamadou dégg nga. léeg-léeg eh, kii du sëru Mamadou Mamadou dëkkul ci lañ de. kii sa tante la ko eh, kii ak ko man eh, moo ma ko jox mais elle est fausse celle-là. yow waxal dëgg la waxuma non yow non yow yow. dëgg bu ma ëpp de moom la yow du benn dëgg. war na sëru laay war du benn dëgg du benn dëgg du dëgg. du dëgg li nga wax du benn dëgg. Ah, du dëgg ah, du dëgg barki maam xaar waaw yow léegi maris léegi dafa ah, delluwaat ubal ubal ubal ubal waaw du dëgg du benn dëgg du benn dëgg laa wax du dëgg. xoolal xoolal xoolal Maawo waaw jëlee sa ganaar Maawo mun nga jëlee. waaye waaye ëpp leen Pape Cheikh merci. <laughs> ëpp ko moom la ne kii sama tante la. kii tantaayu Bessél la bu dëkk Mariste. Bessél demul woon benn ci lañ. kii xamee naa sa jarbaat bi. sama waa famille xale bi dox ci biir reportage bi. jarbaatu Bessél la. voilà. ah waa Paris kër meer lool nee nañ nañ ut congélateur duggee si sa ñaar tànk yi. merci beaucoup <laughs> non mais du ma la tooñ. du ma la tooñ gis nga biir bi ma bëgg nga may ñu jàmm nag ndax ndax waa Paris yi ngay wax bëri na. du ma leen may jàmm ndax du ma leen may jàmm Paris. xaw ma loo am Paris nag. je suis ma sénégalaise. <laughs> alors donc ñoom seen lekk bi mooy lekk bu tooy quoi. Ah, waaw mooy xam nga gan. comme daxin la waaw comme te dëkk bi dafa sori. Mhm. te tali bi nekkul tali bu baax. Ah. boo yegsee dañ lay toggal li nga xamante ne moom mooy laaxu caaxaan. Mhm. Euh, base bi nag dugub lañ ñeleñ yu sew lañ ko toggee jerte ah. noflaay boo ko gisee nag da ngay foog ne euh, tigedege lañ ko defee mais jerte noflaay la ak géej. ah kenn doon gerte bi pour mu nekk tigedege. déedéet noflaay lañ ko lañ ko toggee. bisaab bu wow ak euh, soble bi ñuy béy moom. ñoom xam nga dañuy béy soble bi ba pare day mel ni laaxu bisaab kon tuuti. Ah. waaw mais mais mais am na. am na xaw différence parce que dañuy jël bi ñu paree dañuy jël diw bi sotti ko ci kaw. Ah, yéen seen bool bi ndaw. Euh, suy ko ci kaw ndawul nag dégg nga lekk nañ ko ba mu jeex. mais li waroon na am li ngom Euh, jarul limon mm. parce que dañu jël bisaab bu wow ah, mm-hmm. da koy foroxal waaw dañ ko def ci biir ah, day am daxaar wala déedéet amul daxaar bisaab bi rek lañ koy toggee bisaab ko toggee Pape Cheikh mm-hmm. euh, géej kong lañ ko toggee mm-hmm. ak euh, soble jeex na xorom eh, mais xoolal élément bu am importance xoolal donc maire bi euh, mi ngi dàq booy bi. waaw jarbaatu besel la fii la ci Mariste. rak at at bal bi. est-ce que sax du sama doom est-ce que du sama doom bi may. donc loolu euh, clin d'œil la bu ñu def pour euh, ñu jógee ci la ñu nekk bitim réew du ñu seetaan. mooy loolu comme ni ma la ko waxee rek nekk na plat boo xam ne bu yomb la ba naqariw la defar. da ngay ñuluk raxas géej bi géej gi def sotti ci biir raxas bisaab tëmbal jël seen soble xam nga Fuuta dañoo am seen soble bopp. Ah. moom la ñu dëbb rek ak tuuti. kaani mm. daal di siy def rek ñama ñama ñoom yi ñu ciy boole rek. def ko ci oh, non amul limon. amul limon doo siiju. doo siiju bisaab bu woow la amul dëwlin amul dara boo paree daal di jël. waaw foo demoon dafa fattu dama fattu. léegi nga jël sa diw ñor nag bu boo ko toggee ba mu ñor fekk nag boobu euh, wal nga dugub bi ba pare génnee ñeleng bu sew a sew bi. <laughs> daal di koy sóor ci biir bu ñoree rek nga daal di yekk jël sa diw ñor suy ko ci kaw nit ñi lekk nga lekk bu suur. deju sadi wonyon rek ah. nebbam nebbam simme mbaɗa hen nebbam simme ñama ha kara jarama ha kara a ah. gasni eh, noon mbaɗanma tufam walla ɓe doktoma jonni sa gasni ah. noon sa ñaami ha paari jaaha ƴeewoya ko gandanta ɗum woni euh, euh, mm. seƴƴi teƴƴi mm. ok eyi eyi eyi eyi besal eyi jarama jarama besel noon la koy defee da ngay gis tukkuleer yi mm. euh, bu ñuy am mariage mooy te ñuy woy di naan tag tag tag tag ñu wax wax wax wax wax wax pare naan tag tag tag tag tag tag di tàcc waaw waaw di àndu sayde ah, sayde man dama foogoon ni sappaade la sayde sayde sayde lañ koy wax parce que dafa am sappaade aussi ah sappaade mooy kan ñu toog euh, teg ay gamb di woy yeelaa et tout mais bee nu mu tudd nga ni bokkul bi sayde la tudd sayde la tudd euh, sayde waa wàcci la ñoom booy booy sëy uh-huh. moom lañ lay def sayde dañuy woy waaye ci biir woy ay cax la ok ay cax yu nekk si biir dañ lay xamal nan ngay seeyee. da wute naa xaxar. Hmm? comme laabaan laabaan mais ba xaxar aussi ah. mais ba tey wuute ah. ah, ah. na parce que lii nii da ngay dégg ñu lay ñu lay wax boo demee sa kër jëkkër sa jëkkër lii ak lii lii ak lii sa goro lii ak lii lii mais dafay ànd ak woy bu ñu paree ñu jékki-jékki tàccu. tàccu ko mais tàccu yi tamit. gàllaaj la ci ñëw xam nga lu ñuy def. Hmm. tegal foofu sa baaraam. teg naa ko ci ba ci kanam nga àggale ci tàccu yi. jeex na taal ak wax ji <laughs> foofu la 8h55